auzu billahi mina seytaani rajim wa min kulli man lam yuhibbani min rijaali wa nisaa'i wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina seytaani rajim rabbi auzu bika min amasaati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yahduruun rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajaxal lisaani waxal bi saakire kamaxan hindal mamaati maxal imaani yallaahu sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraayi wakun muhisan lana min charri si ansadin ma charri famin wa darrin ayni yallaahu wa sarri sihrin wa darri xalqi insihimu mah jinnihim wa sawaati summi yallaahu wakun amaami wakun xalfi wakun wasati wa fi yami listimali yarjaay kuni baabal hidaayati mixlaaqal xawaayati mixtaaxad diraayati yaasal xalqinil wasani lanabluwanakum li saabirina ahsibana si li kaasibina bokk jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ndokkeel fas yéene dellusiwaat ak yéen ci sunu waxtaanu alquran yu ñu baaxoo amal te nag du sunu fukk bind fukk fukkeelu bind ak juróom benn ci koor gi di wax ne ñu fas yéene ñëw ci sunu bindu tey nag doon saar wu am am solo saar wi ñu fas yéene waxtaane nag lii si ci mën a jàngate bari lool ndekete kon muy ndog ment yi lu ci ne ak la ci yàlla suñ borom di indi waaye saar wi suñ boroom mi ngi ko tudde saaru fas warkat ya wala nga ne njaabalkat ya walla sax nga ne xarekat ya ndax liñ ci mën a dégg dafa bari lool ci ki jóg ndeke jëm cib xare ndeke xare booba daal lu nit mën a jug di ko defi yéene ci am ca payug yàlla moo gën waaye yéene ci mu doon lu nit kiy def te yàlla rekk tax waaye yéene ci it naka alayhi salaatu ne lu sa couleur réew ci jaamu yàlla la bokk xare ba ngay def jóg jëm ca muy jihaad nga def ko ngir dundal sa diine waaye nga def ko ngir bëgg sa diine tasaaroo waaye nga def ko ngir lan taxawal diine ba nit ñi mën a maandu mën a jëfandikoo diine te duñ ci am dara lu ñuy ragal wala dara lu ñuy tiit waaye ñu mën cee dégg ne saar wii nga xam ne moom lañu war a waxtaane doon saar wu a am solo di saar wu bari njariñ waaye doon saar woo xam ne kenn ku ne xam ne ne saaru njàmbaar la njàmbaarte loo xam ne nit ki nga xam ne dafa tàggoo nag toggoo togg gu tar ci ak njàmbaarte ak jug nag jëm ci fa yéene jihaad ci yoonu yàlla waaye ki nga xam ne nag moom ba muy jóg ngir ne day dem ci jihaad ji da koo def ngir rek bëgg am alali àdduna gis na ñooñu ñi muy war a xeexal yor nañ alal mu bëgg nangu alal ji si ñoom xamul nu muy def ngir jot alal ja mu cokkaas leen fa yéene xeex ak ñoom ngir la not leen nangu seeni alal ci loo xam ne noona neexu leen loolu nag moo taxit suñu borom moom xam ne li ci biir dënd nit ñi te xam ne kenn ku ci nekk ba nga jug ngir jëm ci jihaad jihaad ja nga xam ne danga koo fas ngir dox jëm ca yàlla xam ne ndax moom rek moo tax wala dangaa jóg jëm ci jihaad jooju ngir lan ngir loo duune la say poos te li nga def nag ngir duune la ko say poos doo ci am yàlla waaye li nga def nag te yàlla rek sunu borom tax danga ci am payug sunu borom kon tey saar wi ñu fas yéene waxtaane mooy saar wi nga xam ne mooy téeméereelu saar ci alquran muy sóoratu hadiyaat di sooratu warkat ya wala nga ne sóoratu njaabalkat ya mu doon saar wa ama am solo nag mat a bàyyi xel comme niñ ko waxee sànq nii kon nag liñ ci war a bàyyi xel bari lool ci sunu dugg ak sunu borom subhanahu wa taala moo tax alquranul karim rek mooy dëgg alquran mooy téere bi nga xam ne ku ci mooy di nga jariñu fii jariñu fële suratu Haadiyaat nag mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu xasri wàccee rek muy wal xasri saar yu moo ci topp muy saaru Haadiyaat te mu ngi wàcc màkkatal mu karam doon fukki aaya ak benn auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim walhaadiyaati dabaan falmuuriyaati xadhan falmuqiiraati subhan fa azarna bihi naqahan fa wazatna bihi jamaan inna linsaana li rabbihi lakanuud wa innahu ala saalika la sahiid wa innahu li hubbil xayri la sadiid afalaa yaxlamu iza bu'sira maa fi lqubuur wa xussila ma fi sudur inna rabbahum bihim ma isin la xabiir mbokk yi saar wi day niñ ko waxee sànq saar la wu yéeme doon saar woo xam ne danga ci gis ne kon nit ki ndekete lépp looy def wane ci jàmbarte da ciy am solo waaye la ngay def na yàlla rekk tax ndax yàlla xam na la ci biir dëndi góor yàlla yi mu ne ci turu borom bu tedd bu màgg boobu daal ci lay tàmbalee samay wax ak samay jëf moom mi nga xam ne lépp lu nit di sàkku di ko bëgg te bëgg ca ndam wala nga bëgg ca barke faaw nga tàmbalee ko ci turu borom bu tedd boobu daal mu ne borom boobu nag mooy borom yërmande ji yërmande ji nga xam ne daj na àdduna kàpp njeel mboolem mbindaafanam yépp moom sunu borom subhaanahu wa taala di boroom xéewal yu dijj yi nga xam ne day ku ko jaamoo ku ko jaamuwut mboolem ndong ment lees ñeme xool lees ñeme wuta xool ba ca la ca géej gaag la ca jéeri ja ba ca la ca dexee lépp yàlla sunu borom moo leen fay fekk ak wërsëg boo xam ne ak yërmande joo xam ne xaroo na leen ko ci yërmandeem ji yaatu ji waaye borom boobu nag nga xam ne li yërmandeem ji yaatu yaatu yaatu waaye nag mu doon yërmande joo xam ne nag dajale na ko mbooleem mbindaafonam mi waaye yàlla moomu nag am na yërmande joo xam ne nag doo ko def aw bakar feggu di yërmande ju sew di borom xéewal yu sew yi jagleel ko ñi nga xam ne dañ koo gëmoon di ko jaamate boole wonu kook dara moom sunu borom subhaanahu wa taala moomu yërmandeem jooju nag nga xam ne mooy yërmande ju sew joo xam ne daf koo jagleel ñi nga xam ne dañ koy jaamu ëllëg yamal xiyaamata ak bar te yërmande <clears throat> ak xéewal yooyu mu tàmbali leen ko defal leen ko bakkar feegu ca bàmmeelee muy xéewal yoo xam ne bañu nee ca bàmmeelee la leen fa tàmbalee fekk waaye du dañ ba keroog ñuy dekk ca bis penc ba waaye du dañ ba keroog ñuy naan ca déeg ba waaye du dañ ba keroog nag ñuy dugg ak àjjana xéewale sax fa dàq ànd ak ñoom mu ne ci tur yàlla moomu daal ci la ñuy tàmbali suñuy wax ak suñuy jëf mu ne giñ naa moom suñu boroom mu ne ak sama giñ walla giñ naa walla nga ne njaabalkat ya njaabalkat ya seen gémmiñu fas yey fuur mu ne giñ naa ci njàmbarte njaabalkat ya nga xam ne seen gémmiñu fas day fuur ci lan gëdd ya ñuy di këdd seeni tànk muy xuuy di génne ay farñeent ca màng ya bu jugee jëm ca màng ya ngir fas yéene nag xeex ngir def jihaad jëm ci lan muy ya nga xamee ne ñoom dañoo jóg ngir seenu njàmbarte fas yéene xeex ak noon ya mu ne giñ naa de ci ñooñu nga xam ne ñooy njaabalkat yi di warkat yi doon ñi nga xam ne day ñu amuk dogu lañ waaye day ak njàmbaarte goo xam ne danañ ko wane ci bu nu jugee jëm ci jihaad waaye day war ca seeni fase di këddaa fas yéene rek nangu mboolem màng ya waaye day yemuñu ca waaye bu ñuy këddaa seen fas ya ngay gis seen tànki fas yi di génne ay ferñeent di xuuy xuuy wu jéggi dayoo waaye ak ñay sang ña nga xam ne dañuy sang suba cuuy di sang suba teel kon loolu mu doon lu ama ama am solo waaye day mu ne yay naawal nag pënd ba nga gis pënd biy naaw ndeysaan ci ngirum jàmbarte ñuy xuus ci biir noon yi di dem ba jeex tàkk ci xuus koo xam ne ñu ngi koy xuus ci biir noon yi duñu ragal duñu delta gannaaw ñu day yàlla suñu borom ñoom mi ngi wax ci seenu jàmbaarte waaye mu ne jàmbaarkat yooyee kat jóg jóg ci fajar cuuy sang fasiya waaye di rëkk seeni fas di dawal di pëndal mu ne day di xuus ci biir noon yi mu ne ñooñu day nit ñooñu day ñuy delloo njukkal seen boroom lañu allahu akbar moo tax mu ne te kan moom sunu borom boobu seede la ci loolee nga xam ne ñu ngi ko doon jëf yàlla sunu borom dara ump ko ci seede la kat ci mbooleem jëf yooyu nga xam ne yëpp ñu ngi koy jëf te kan moom ku tar la ci maanaam mu ne moom doomi aadama nag am na ñoo xam ne ñu tar lañ ci xir te lool te xir lool ci sàkku alal maanaam alali àdduna ji ñoo xam ne dañoo xir lool ci sàkku alal te buñ xir xir googu nga xam ne nag dañ koo xir ngir sàkku alal luñ ci bàyyi xel leen moo tax doomu aadama xir gi mu xir lool ci bëgg alal ak di ko sàkku am na ci noo xam ne moom luñ ko amee baax na waaye am na ci noo xam ne nag doxee wunu noonu moo tax nag loolu mat a bàyyi xel bu baax a baax moo tax suñu boroom mu ne xanaa nag dañoo xamul ne moom sunu boroom subaanoo wa taala ginnaaw ba mu ñu ca ca ci biir bàmmeel ya la tàmbali nekk ci biir bàmmeel ya waaye day damaa jëlale waaye ba ci biir dënn yi la xam ne fas nañ ko ci tem nekk ci sunu dënn loolu day nañu bàyyi xel ne bu baax ci biir xubóor maanaam ci biir bàmmeel yi laa bëgg a wax sunu borom xam na ko ba xam li nekkuñ sunu dënd lañ ca fas ak luñ ci fasut ndax yéene ju baax lañ ca fas wala fasuñu ci te loolu nag mu doon lu mat a bàyyi xel kon niñ ko waxee sànq ki jug ngir ne dafa war a jug jëm ci sunu borom subhanahu wa moo tax li sunu borom wax ne saa sunu ko jaxasee ci biir bàmmeel yi maanaam mooy ki nga xam ne moom ci xare bi faatu na ci ba dugg ci biir bàmmeel dina xam ndax moom yàlla xam na ndax moom yàlla moo taxoon muy def wala yàlla taxul waaye ki nga xam ne nag dem na ba sunu boroom dogal nag ñu jaxase ko nag tabbal ko ci biir bàmmeel ya bu boobaa nag kooku moom dana xam bu baax a baax a baax yàlla sunu borom moom mooy kan. moo tax mu ne nag bu boobaa nag yàlla suñu borom bu wuññee mboolem li nga xam ne li nekkoon ci seeni biir dënd la mu ne nag bu keree goye sunu borom ku deñ ak kump la bu keree nag da xam ne. yàlla sunu boroom ku dañu kump la kon mbokk yi lu lu lu mat a bàyyi xel loolu kon mat naa bàyyi xel yow mi jug ak loo mën a jug ngir sàkku ji ko wala nga jóg sax ngir bëgg a tukki war ngaa bàyyi xel sa diggante ak sa boroom tukki ba ndax yàlla tax nga di ko tukki wala da tukki ngir wut loo dundale sa njaboot yow mi nga xam ne danga doon soldaar jóg fa yéene ne da ngay défendre sa couleur réew kon war nga bàyyi xel sa diggante ak sa borom lii moom. saar wi moom mbooleem takk der yi war nañ koy jàng te jéem ko fexe mokkal te xam dëgg-dëgg yëlla yi ndaxte lu ama am solo la ci mat a bàyyi xel yow mi nga xam ne da nga jug nag waaye bi ngay jug jugoo de ngir am yéene ju sell ci ne da nga jug ngir di défendre sa réew waaye da nga jug rek ngir wute ko alal bu boobaa loola nga cay sàkku rek nga cay am muy alal ja waaye nag bu da nga jug ngir def ko ngir jaamoo ko yàlla di nga ca am alal am ca yàlla ndax yàlla sunu borom moom li mu wax rek nit ki bi nga jugee nag ngir nga xam ne da nga jug di xeexal sam réew nag yow xoolal la la ci yàlla mën a faye mooy nga faatu tàbbi na te loolu fekk nga doon ab jullit nga faatu tàbbi na kon moo tax lu mel ne waa bande de Gaza ñooñu li ñuy def dañoo jug wane njàmbaarte di xeex ngir seenum réew moo tax gis ngeen ñu bari faatu nañ ca waaye lu mu yàgg-yàgg mun leen génnewaate da ngeen gis seeni néew dara du ci sikk ñooñu xeexunu ngir alal waaye dañuy xeex ngir lan rawale seen diine waaye dañuy xeex ngir bëgg seen seen seen seenu askan am jàmm kon yow mi jug ngir aar saw askan ba nga jug takk war ca fas ya ngir fas yéene dem xeex xeex di këddaa sa fas ngir wane njàmbarte ba ngay ba muy génne ay ferñeent lépp ci ci njàmbarte kon mi ngi mel ne yow mu yor sag fetal jàkkaarloog nit dóor ko bal ba balu fitalee génn di xuuy wala nga jël yooyu nga xam ne dangay jël bal bi rek dugal ci bàyyi mën a bëm daal di génn garaaw lool mën a faagaagal lu bari ci ay noon loolu lépp nga koy def waaye def nga koy def nga koy def ngir jaamoo ko yàlla rek yàlla sunu borom nag gis na teel a yow wala sax doo yendal doo fanaanal ba bëccëg nga ne ci nekk ca ci lan fas yéene rek défendre sam réew coono boo ci jànkonteel bu boobaa nga am ci yàlla bu boobaa alal ji la ca fekk bu boobaa nga xam ne alal jakat wala xiroo ci woon ngir jot alal ji waaye alal ji yàlla la ko def waaye bu dee ki nga xam ne dafa xiroon ngir am alal nag moom su ko ci amee tanawu na alal ja moom am na ko ca waaye du ci am yàlla bu ko ci amul nag pertement da koy daal di dikkal ndax alal ja ñàkk na ko kooku nag bu dee ñàkk na alal ja ba faatu dikkal ko ci nag ñu far ko jaxase nag ca bàmmeel ya maanaam jaxase ga moo xam ni war di dawal di ko joggi di wëy ko joggi di wëy ba mu jaxasoog suuf sa wala ñu gas sax tàbbal ko ca ba noppi fas yéenee continuer xeex ya bu boobaa kooku moom jaxase gën ko jaxase ci biir bàmmeele dana xam ne yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ku dañu réer la. dana xam ne yàlla sunu borom ku dañu réer la waaye yàlla sunu borom moom day xam na li ci biir dëndu yi te loolu nag lu mat a bàyyi xel la kon nañu góor góor góorgóorlu sunu digg sunu borom te gën a fonkaat téere borom bi ndax alxuraan mooy nda naa leen waxoon ak alxuraan xummaa aw jihin la. da ngay indi benn aaya am ci dégg-dégg ne nii nit ñëw dégg ci dégg bu gën a xóot sax yow dégg bi nga ci déggoon nga mën cee jariñu moo tax loolu daal mooy alxuraan loolu mooy téere borom bi di téere bu am solo di téere bu mat a sonne di téere bu mat a gas ak njaboot ngir ñu koy sàkku ndax alxuraan rek mooy téere bi nga xam ne léppam njariñ la waaw léppam njariñ la kon yàlla ñu yàlla defal déggoo ak topp lu ci jub ñu sant ko yàlla lu ci dëng ngeen jéggalu ko te xam ne matatu doomi aadama la seen bokk la seen xarit Serigne Mbacke Lo Xasaayit Ngabou di wax li borom xam-xam yi li kulli jaba li kulli jawaabin kabaa wa li kulli alimin xafaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu